colonel Souleymane Kandé weddi na ko nee na amul benn jàppal bàyyil bu dox ci diggante armée bi ak ay éléments yu yor ay ngànnaay nekk foofee ci bët saalamu réew mi mhm. xoolal réew mi ko tijjee njëgal ganaar yaa ngi buggaan ngay tani anamu mais dafa yokk siré mhm. siré mhm. yaa tay takk mor sa ba xonq te li ñu ci joxol metti nañu mais mais Ahmed oui <laughs> bugaan fay na ay téléphone am non kii lii la def mais li li li doon wax. Baye Eli da koy tere. non non takkal ma ko fii. Siré takkal ma ko fii. brassard non Siré takkal ma ko fii defal lu gaaw. Mm-hmm. monsieur le préfet. vite vite préfet. préfet de lañ ko doon woowee. voilà c'est bon. léegi. Dadwa. Dadwa. Dadwa. mi ngi nii dat bi. Ah, non kii. ba ko kii dem ci nguur gi bu yàgg. yaa dem ci ñu nay. li yëpp yaa ñu ko yóbbee. dégg nga le quotidien ñëw ak ñun ci Cheikh Dieng nee na. mais ça c'est une décision unilatérale Siré. yooyu Macky Sall mi waxtaan naa kenn. ñii wax jaar nii ñii wax jaar nii mu daal di tranché moo bindal boppam. waaye mu njaay si seen na nañ fexe nag ba le 23 bii. 2022 bii. na fexe ba buñ ko taafantaloo nag bay ak ay élection député. buñ ko taafantaloo de. l'observateur ñëw ak ñun ci. mi nga sonn ngi nii Irène. ambassadrice su Union européenne bi. moom nag la mu wax rek mooy Sénégal daal euh, bu ñu bu ñu bu ñu beew dormir sur nos lauriers ba daal euh, mare de taali gars yi dam ñëw libération yéen kaay ñëw ak ñun ci l'affaire Pape Ndiaye le journaliste daal dina expliqué waaye Abdoul mbay moom leen rek la jàpp ñii daal profité nañ ci lii bëgg a tëj gémmeñu waa ji waaye dara gënta neex lii fédération sénégalaise bu football plus de cinquante mille dollars dollars xam pour lan ay ay ay ay équipement matériel communication boo xam ni yow. kenn gisul benn ñaar. 44 000 dollars. pour former ay agent au marketing pour ñuy làkk anglais. bu baax. mais Siré ñaata xale ñoom ñoo fi def anglais. génn université wala ci ci ci institut. mais doo leen recruter directement. moo tax journal bi nee na ngeen góorgóorlu ba seen agent yi ci boppam nañ ñu làkkal anglais bu jub kat. bu ñu fi rey ay I don't know. presque when we go. voilà presque vingt deux after. vingt cinq minutes this morning. this afternoon. nañ ko dimbali. waaw mm-hmm. vraiment jàng sa benn expression indi ñëw teg naan le temps perdu ne se rattrape jamais. lost time is never found again. rek këru ko nañ na ngeen fexe nag ba. 25 mm. millions pour jàng anglais waaw dégg nga loolu. Saliou Sarr pôle opposition bi. nee na nag fi mu nekk nii. wure dem na kën. mi ngi nii. non. sëgg bëri. oui. amatul gedd moom. dofuñ sax di gedd laa yaakaar ñoom opposition. boycotter les élections. non. nee na fi mu nekk nii kay nañ dem ak li fi ne. li fi ne daal nañ dem ak moom. il faut aller a ces élections point léegi nag lii yëpp ñoom bokk nañ ci ñu ko yóbbu seen bopp critique yéen kaa ñëw ak ñun ci Macky sal bu doon avion la dañ naan bopp avion bi avion bi moom benn commandant koy dawal moom dong moo fa toog fi mu nekk nii aj na élection yi décision unilatérale te bu ko neexee élection deux mille vingt deux député yi mu ajaat ko te bu ko ajee bu ko neexee mu ajaat présidentielle bi <laughs> kii nag moo jar a takkal ba xonq évidence yéen masjidul aqsa sama maam fa la déparé woon dégg nga loolu ànd ak waaye la jibril di rëy laaf yëpp dafa am fa mu yem jumaa jooju tey la waa israël song ca palestine moo tax waa Medina Baye waa Kër Baye ña si nee nañu mais lii xam nga la lay sa naqaral askanu jullit gi moo waral lii dégg nga loolu direct news ñëw ak ci directeur de la moom ne ma ngay solde ay comptam baax na évidence yéen kaay ñëw ak ñun ci G5 Sahel bi Sénégal nag njortees nañ ne daal dana ko intégré 24 heures ñëw ak ñun ci condamnation bi li ñu naqarlu Israël gis nga ko ni Ousmane Tounkara kon li ñoom Macky Sall bëggoon mujjul am maître Moussa Diop ak. Silla DG wu Dakar Dem Dikk bun xataab Silla kii turandoo bun la ko Abdallah dem nii rek la fay demee. si ne ma dem ah. waa ca bisimilah xoolal. président africain yi. mais fan la ñuy jëlee xaalis. président bu Mauritanie bii Mohamed Ould Abdel Aziz xam nga lan lañ ko fekkee. deux cent milliards liquide. déglu de plus de deux cent cinquante milliards wala trois cent milliards francs CFA ci ay matériel espionnage dégg nga loolu de sophistiqué oto ak liquide bi deux sa milliards maanaam ci kaw gàttal quatre cent soixante dix le président Ben Ali keroog deux ba muy daw koofram lañ fa fekk doy na waar kii moom soixante cinq kilo or ak quatre cent soixante dix milliards mais lii lan la su réew lii lan la président Macky Sall rek jàpp na mhm. opposition bi dañ ne woon. Mhm. yaas nu waray quoi. message. mooy chef de cabinet Aliou. Aliou waaw. nee na matinal tant pis. voilà. suñ porte parole bi wax ko ñu continuer Amadou Diarra. Amadou Diarra. la mu wàcc woon dong la lekk. songo Macky attaqué ko xas ko dem na ca Macky. delluwaat déggoo ma de waaye. yéen a kaay des médias bi demu Diarra bi nag du sedd de. parce que jël nañu ñaar déglu revue de presse bi après ñaar ñoo xam ne APR Pikine noor la ñu nee ñoo ils ne sont pas contrôlés ci venir bi na ñëw waaye nag dootu fi nekk maire ah non non non mënuñoo liggéey liggéey liggéey ah. liggéey liggéey 2014 ba 2022 ñu naan élection locale mhm. yow mi ñëw démboo Njaay bëgg a jël place mhm. ñàkk fayda googu géej waaye la am waaye amul Pikine mhm. xaayaar ku dégg séeréer aca te géejawaay sax yow daa ci jóg ah. oh, oh yooyu xam nga yooyu suñu ginnaaw. def nekkal gor. Ah. waaw ànd ak Macky xeex ak moom ba dara nekkul dara. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ba 2014 nit jóge ca àll ba ñoo leen dem leen toog maay doon seen buur. loolu xam nga ne géejawaay rek la mën a am Walfadjri ñëw ak ñun ci gis nga ah xanaa délégation spéciale day ñëw voilà. xanaa doo ma dañ leen fii bàyyi ba le ba le ba le 23 de laa yaakaar donc su ko biir ñëw ak ñun ci local yaa nga Macky nee ne le 23 janvier 2022 la opposition bi lan lañ bëggoon gën a sori décembre. xeex ba nag ma nga ca diggante Abdoulaye Wilane ak Ablaye Ablaye Sow ñaari Ablaye yii ca Kaffrine mais Macky aussi mag Macky tam mu ngi seetaan de